asalaamaaleykum Modou Anta ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la di la di la di la kontaane baax gis nga Modou Anta mu ngi noonu gis ngeen ko mu ñëw tey xam naa ni euh, day waaj rek balaa muy wax def ay préparation xam ngeen mbër ak ay affaire moom balaa muy wax ak euh, euh, journaliste yi il mu préparer ni muy waxee ak yooyu xam naa ci foofu la toll waaye bu leen ngeen teewlu tuuti rek nañ fexe ba poser ko suñu ay question ngeen mën ci am ay information yu leer gis ngeen ko mu ngi noonu tey sol blouson bu bleu def plan gis ngeen tey bu ngeen xooloo bopp bi xaw naa jaxasoo ngeen xam ne euh, boo ko xoolee xam ne moom mu ngi ci combat bi mu ngi ci combat moom Modou Anta waaw euh, gis ngeen ko tey mu ngi noonu ànd ak kii nga xam ne moom mooy Laye Gothé di rakkam bokk ak moom ndey ak baay Laye nag suñ ko waxee moom tamit champion la bu leen fàttalee def na lu ne ci làmb te bëri na sax ba bëri ak ki nga xam ne moom moo di Pape Ndoye Laye Gothé nekk champion gis nga mu ngi noonu tey di def ay affaire am balaa ñuy balaa ñuy balaa ñuy wax Laye Gothé jaajëf jaar nañ waaw Laye Gothé Laye ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi leen di fay waa Kaataab yi ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Abdou Sakkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ak sëñ Cheikh Jëmb Fall mi suñu xalifa général waaw laay goote ñu gis ne yow yaa ngi Modou Anta yéen a bokk ndey ak baay tey mu war a jàkkaarloo ak Diène Kairé mhm. ba tax Zarak Vision teew fi tey ñu gis ne euh, Diène Kairé nekk xale boo xam dafa nekk ci yoon mhm. ak fi Modou Anta toll ci toll ci làmb war ko may sens est-ce que du risque ci yéen ngeen jël loolu du ma ci sori bi gën a sedd mooy mu ñëw rek daanu bu fa nekkee di kalti kalti dañ ko yenu ba ci kaw ko ci suuf wala ñu dóor ko mu daanu bi gën a sedd ci moom mooy mu ñëw rek jébalu coow li ko. waaw mais tamit dañu gis ne dañu dañu gis gars yi ziar na leen ñu ngi suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal lu baax ci seetaan bi nga ñu partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Argentine fépp la fu Sénégal nekk di bu baax di la ziar tey ñu ngi fii buntu 2STV euh, ci jàkkaarloo bu bu mujj bu nar a dox si diggante Eumeu ak Lac de Guiers numéro ñu dégg fekk manager Eumeu Sène muy Père Ibn ñu fas yéene waxtaan moom ci combat bi dañ koy nuyu baax mu nuyu ñu seetaan ñu dugg si waxtaan d'ailleurs ba ma sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah gërëm samay waajur di ñaanal ñëpp ñu fi jóge ci mbas mi di ñaanal Sénégal yëpp am na solo te la ma waraloon tànk yi waaw li taxoon ma ñëw fii 2S bon parce que Gaston moo woote woon face to face mhm. waaw mbër yëpp lañu ñu woo fii tey ji 2S loolu moo ma fi tax a ñëw waaw parce que waaw parce que tey mooy dernière ligne droite bi pour ñu mën a préparer le cadre incha allah. am na solo bisu nan ngeen nan ngeen nan ngeen ko waajalee. ah waaw comme ni ñu daal waajalee combat yëpp rek. Mhm. parce que defe naa ne ñun tàmm nañ di euh, tàmm nañ di waajali combat. Mhm. waaw defe naa ne c'est pas la première fois bi bi nekkul sunu combat bu njëkk sunu grand grand grand combat bu bu njëkk. ma yàgg nañ di préparer combat bon ba nga xam ne vraiment tàmm nañ ko daal waaw tàmm nañ ko waaw. préparation fan noo gisee Eumeu Sène am état physique am. ah waaw Eumeu Sène mi ngi def entraînement waaw gis naa ne daal vraiment euh, mi ngi ci forme bu baax a baax a baax waaw mi ngi ci forme bu baax a baax baax. mais seen adversaire décidé de. ah waaw adversaire bi décidé na ne da ngeen da di ngeen xeex di daanu. a ah, waaw xam nga nit ku nekk rek bon da ngay wax li nekk si yow. waaw xëy na peut moo nekk si moom waaye moom it bu xam. li ne ci ñun. waaw xam naa ne incha allah rabbi lépp daal li ma la mën a wax mooy lépp daal ci ci géew ba la. waaw en tout cas ñun ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu daal. waaw ñu daan ko jël bu bu rëy rëy. incha allah ñoo koy ñaan yàlla. am na solo merci Père. jërëjëf.